محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله شيخ موسى لا إله daanaka liñ fi yëkkati bi maam daam waxee ba pare rek nañ ci képp koo xam ne am nga xel tey xalaat ndax wax ji gàtt na mais tënku na leeral na ci itam lu am solo ba mu waxee rek kàddu gi Cheikh Moussa waxoon li ma yàlla yoor ci jot jottile xayral aalamiina ca màkk teg ko ci loxo xaadim rasool miñ ne mooy jëwriñam xaadim rasool yor ma ko ci fii ci daaru ma yëkkati ko ci kaw ne ko bëgg na ñëw jël xam nga loolu dafa leer parce que moom dafa woote moom dafa woote kon wàcc na ñun ñi wuy si itam wàcc nañ waaye kan moom wàcc la wut nag mooy ki dégg woote te wuy si wut wala mu dem woo wuy ji ku woote wut loolu nag mooy solo si ki dégg woote nit woote ci kàddu gu leer ci kàddu olof yoo mën a dégg nga lànk wuy ji woo ko ba pare wuy ji koo xam ne woote wut te dañoo toll ci jamono joo xam ne fi mu nekk nii li jar leeral mooy nit ñi dañoo woote wut te ñu wuy ji leen wootee ku woote ba fégal lañu nekk di organiser pour jariñu waaye wootewuñ nag pour taal faydu boo xam ne nit ñi dañ cee ñëw pour mu mën a màndal nit ñi te ku ko laal jariñu loolu nag mooy coonaam nit ñi fiñ ñu toll te lu naqaree waxtaane la waaye nag lu neex a waxtaane la parce que boo koy waxtaane dangay am ay usul yoo xam ne moo nga koy teg yoo xam ne boo làkkut arab sax képp ku am xel tey liggéey sa xel boo ko waxee bu ko seetlantalee xam ne lii nga wax moom dëgg la moom mu des ci moom nag mu war a jaayante baat bii ñu fi doon yëkkati ñoom ñépp ñoo ci bokk yam ñoom ñépp ñoo koy bokk yëkkatindoo waaye liñ ci xam nit ñi xamuñu ko ci ndax lan ki ko yàlla teg ci loxoom mu woote dañ ko wuy jiw nit ñi ñu ngi wax laa ilaaha illallaah comme ni ñu koy waxee de lu tax ñun ñu yëg ci luñ ci yëgut bay wax lu leen yéem bañ dina weddi kon am kilifa la mooy ki woote te yàlla defal ko ci xaas jagleel ko ko ku bëgg ci njariñ ci baat bi ci kooku ngay jaar amaana nag buñ ko waxee day nuru kuy woote di propagande mais loolu la yàlla dogal ndax ñépp a ngi koy wax te moomuñu ko ñun tam waaye nag liñ ci yëg nit ñi yëgunu ko ci lan moo tax ki nga xam ne moom la ko yàlla jagleel te mu oote ko moom lañ àndal moo tax ñu am ci loo xam ne dañ ciy yëg lu nit ñi yëgut amaana am na sax ñu ne ko ak saa njëkk a tudd bu dee lépp lu ñuy woote ci lislaam itam tey amaana am na ci loo xam ne bu doon xeetu jàng la amaana nit ñi ëpp lañu ko waaye nag su fekkee xam-xam rek boo xam ne dafay jëriñ nit fii ak fële ak saa yàlla baaxee nañu ci ban sant ci yàlla ci darajaay Cheikh Moussa kon su fekkee ne nii dafa ne gàpp naa ci mbincam Serigne Touba ba àgg ci yàlla te man ca àggale jaam ku ma jox sa bopp te bàyyi ma ak sa bopp ma yóbbu la ci yàlla ba nga yëg ko kii lu leer la wax kon su ko yàlla jagleelee bis bi nag. ci weer woo xam ne nii ak saa weeru ngëneel la muy sayru ramadaan nga xam ne dañ ne ci la alxuraan wàcc te moom mu wax ne bi mu jotee xam-xam yi ni ko masale yi doon wàccee ci rasulullaay lay wàccee ci moom kon ak saa alxuraan dafa wàcc ci moom wàccee alxuraan nag ak alxuraan wàcc ci yow nekkul benn nit ñi dañuy juum toujours naan diw wàcce na alxuraan wàcce na ñaata kaamil waaye fukki kaamil téeméeri kaamil benn la waaye nag alxuraan su fekkee dafa wàcc ci yow hakka li ñuy soxla ci yow mooy am ci yow ndax kat aaya ba dañoo wax ne law ansalna haza alqurana ala jabalin la raaytoo xaashaan mutasaddian min xasatillahi am déet waxul boo ko wàccee de de dañ ne wàccee lañ ci yow alxuraan alxuraan kon bu wàccee ci yow ak sa doj doj wa sa xol dafay nooy dafay toroxlu dafay wadd ngir ragal yàlla nga gis nag ni ko jàngoon ne dañ koo wàcce wàcce te wàccut ci ñoom mu ak naka lañ mel kon defe naa ne suñ diggante ak nit ñi su fekkee dañ ñuy joxoñ ci lu ñuy wax lu leen jaaxal lii rekk la mooy kilifa yi ci la nit ñi gënantee ndax yàgg nañ fi te waxuñu lii xamuñu lii kon nag su ko baaxee leeru alxuraan ci weeru koor ci ñetti fan kon ñun am nañ jagle suñ dee séentu ñetti fan yooyu di ko màggal itam ba yàlla dogal ak yokkute am ci ñu jagleel guddi gi maam say Ibrahima Fall ñu ne mooy làmp baabul muridina te kenn xamewutoon loo xam ne nii moom la doon gànnaayoo di ko jëfandikoo lu dul laa ilaha illallah ak jëfal sëriñam te baat boobu ci la jàpp ba ne rëkk sar sarale yàlla jàmm nga am kon bis bi Cheikh Moussa dane ku ma jox sa bopp te bàyyi ma sa bopp ma yóbbu la ci yàlla ba nga yëg ko kon li tax ñu woote fii di woote dañoo bëgg a leeral li sëriñ sëriñ yor muy secret baatub laa ilaha illallah waxul wax baat bi rek dane secret baatub laa ilaha illallah woote secret ma nag mooy génne nit ci sirku billaahi yóbbu ko ci xaarif billaahi mu am tawhid bañ a bokkaale yàlla nit ñi ñu ngi tudd yàlla ñu ngi jàng alxuraan ñu ngi weer euh, woor ñu ngi julli waxtu yi juróom ñu ngi dem màkkaaka ñëw waaye mënuñoo génn ci sirku billaay te sirku day yàq jëf alquran moo ko wax asrakta la yaxbatan ahmaluka wala takun min alxaasirin waaw walillaahi faabut wala takun minal alxaasirin boo leen ma bokkaalee mu sippi seeni jëf kon jëf ju baax ji nit ñiy def li tax mënu leen a fim fi mu leen war a hakka saa li nekk ci ñoom te ci kon nag ki ñu tuddee bis bi bu ñu ko joxee tegtal rek ci leeral li suñu sëriñ woowee ñu te waral guddi gii loolu nit ñi war nañ koo mën a dégg ndax kat buñ jàngee taarixam moom nekkoon na koo xam ne nii nit ku jàngoon la nit la woon koo xam ne nii ku doon gëstu digganteem ak boromam la ba mu jar ko ay def ay listixaar nit koo xam ne la dañ doon wax da doon julli ba tànk yi am ay daar daar ku jàngoon la bañ ne bind na jës bul murit waaye bi nga xamee ne nii tëdd na guddi listixaar te nit ñi wax nañu ko ca marsi ba mas nay xibaar ak njébbuloom bay wax na yàlla mii ko moom moo ko ne bamba moo la moom raasi ko jox ko say pexe foofu la coow li ne yàlla moo moom ba pare ne ko bamba moo moom raasi ko nag jox ko say pexe loolu naka la mën a demee hakka sa te moom yàgg na feeg yàlla te xamut yàlla yàlla tegtal ko nag hakka sa ne bamba moo la moom raasi ko jox ko say pexe ndekete comme pour yaayam moom ko di tëgg faaw mu dem ci bàmba mu xamal ko yàlla mi ko moom yàlla kenn mënta jóg dem ci moom faw nga am kerkeraan te def na ay góorgóorloom ci góorgóorlu ci istihaad ijtihaad ba ruuxam mar suñu boroom mu jóg di ko wër ba tax ñi fi doon oote ñëpp di di di di di tañ di wooteeg sëriñ moom mu toog xool seen mbir xool kenn tanewu ko mën a garab bu la sutul du la may ker kon kooku da doon wër de ñun nag dañuy ñëw rek jébbalu dañuy ñëw rek toppe duñu xalaat duñu xam lu ñu tax a jóg waaye kooku moom ku xamoon li ko tax a jóg la te ba mu demee loolu la laaj dañuy wax chaque jour bu dee da ngay jaay sa sëriñ am nag wilaaya mënta romb sëriñ bi muy sëriñ Touba ak ku mënti doon bu dee martabaak lu mënti doon mënu ko romb waaye sëñ bi la fekk ne ko ci yàlla laa bëgg a kon kooku dafa am loo xam ne nii moo ko tax a jóg te xam na ko te bi mu demee moom la laaj ku mën a julli mën a woor mën a asaka mën a dem màkk soo ko amee ak sa di taxawal waxtu yu juróom bay naafi la jàng xam-xam ba mën a def listixaar mu toog mu wax la lu leer kooku boo jógee di wër xam nga li ngay wër te moom lañ ne mooy baabul muridina kon loolu dafa jara jàngat te dafa akkasaa nit ñu war cee xelu ci diggante toppante yi nga xam ne nii moo tax ñun ki ñuy topp defal ñu lii ba ñuy yee ñuy toppe ci diggante taalibe ak sëriñ foofu dafa jaral leeral parce que foofu rek la mbir mi ne taalibe su fekkee ne nii jàng na ba xam-xam la salaam ak ba'da salaam li ñuy jaamoo yàlla ci fiq yépp mu xam ko te di ko jooxe mu jógee foofu ak saa xam ne am na lu ko dese mu dem wuti koo xam ne nii sëriñ la ci biir tarixa bi war na settantal sëriñ boobu lan la ko war a toppee leneen lu mu ko dig lu dul xam yàlla nax na ko bu nekk ko julli nee na ko jàngoon naa ko or mën naa ko maa ngi koy jëfe asakaat dem màkk yépp kenn ku ci nekk xam nga ko kon lan la fa wuti mooy li tax ñu woote guddi gii guddi gii li tax ñu oote ko du mën a wóor du mën a jàng alxuraan du mën a julli donte ne ñu ngi koy def guddeeg àgg ci yàlla la ak xam yàlla ak gis yàlla yàlla ku ca àggul mënoo koo xam mënoo koo gis yàlla nag du dëkk waaye yoonu wu jub moo fa jëm waaye faaw nga am kerkeraan te soriwut nag ndax turam yi dañuy wax ne turi yàlla yi baayit bokk ci waaye xarit bokk na ci wa nahnu aqrabu ilayhi min xablil wari kon ku gisut yàlla wala àggoo ci wala xamoo ko du ci yàlla mais ci yow la yow yaa am ay sikk yoo xam ne moom nga bëgg a tàqarlikool ba tax ngay julli baa ngay woor wala ngay asaka wala ngay dem màgg te fii ñu toll ci suñu jamono am na ñoo xam ne seen a góorgóorlu seen digganteeg seen borom moo dox seen digganteeg seen borom te neexut a wax ay nit a fi fii ñu kaala leen def leen ay jaamukatu yàlla ba di leen présenté seen góor góorlu googu moo tax duñ dem ci yàlla te loolu bokkut ak yàlla gis nga ay yoo am ci yàlla wala ay ndombaay tànk yu la la yàlla takkal bokkut yàlla xam yàlla beneen affaire la te ku xamut yàlla rek bokkaale ko ak loo réeree kaala nag xam yàlla mooy dindi nit ci bokkaale yàlla bokkaale yàlla nag moo yàq réew mi ba ku nekk di jooy waaye amul lu fi manqué li manqué ci nit la manqué waaye dara manqué wu fi ku nekk xam na ne fii jamono toll li ñu am ñi jéete woon démb amuñu ko am déet ci côté boo làmb nag waaye xoolal li fiy ñaawteef ak yàqu-yàqu te loo ci dem loxoom nit nga cay fekk kon nit ñi ñoo yàqu te jara defar te lii ñuy yaakaar bu leen doon defar defar na leen ñaata jàkka am fi mu ne ci koñ yi ñaata jumaa yi am nit ñi mboolem xeetu jaam yàlla ñu ngi koy jooxe waaye defaru te tijj ndax ci biir jullit yi dafa am ay musrik dafa am ay naafiq te dafa bëri te boo ko waxee nit ñi man koo gis gis nga majjaar bii ñu doon majjaar rek daanaka wallaahi asim budul xaalis bi jar na ko bu dul sax liñ ciy am ci ay koow parce que boobu ba léegi foo romb rek loolu lañuy ñuy waxtaane ba tey jii ci bëccëg wallaahi asim benn waaye ma dogale fekk waxtaan nañ ay at yu bëri mu woo ma cuq ma ñu waxtaan waxtaan bu yàgg benn waaye fekk ñu fa di taxi ne jullit de du dem du dem safara ma ne ko waa jullit du dem safara waaye kan mooy jullit ma ne ko yow laaj naa la ndax xàmmee nga jullit ak ak naafeq ak musrik ak yéefar mu ne loolu amul mais yàllaa ñu àtte dañoo jox tuuti benn boroom lem jaar fa ne lem-lem mu ne man de lem piir laa bëgg mu ne ko yàlla àtte nañu mu ne ko lem gii yamba ko defar ñaata garab la ci boole buñ ko bàyyi woon te na ko yamb defaree lu ne mën na koo faj loolu la yonent bi wax jullit comme yow moo ko dem nemmi ca ca ca fañ koy nemmee ñëw dëpp tàndarma ak suukar def ci ba yow njar nañ ko ba nga ne lempir ngay wut kooku ndax jullit la mu ne laa ilaha illallah te foo dem lii nga fay fekk te ñi koy def ñooy fi jëm ci jàkka yi ñoo naan asalaamaaleykum allah akbar ñooy wàcce kaamil ka ñëw kon ndax defaru am na beneen waaye itam romb ma ma yor sama bagage mu ne ma man de dafa am ku ma romb seen màjjaal mi te ba ma koy xam moo dàq na fubal ci àdduna waaye kii de yàlla dimbali na ko mu ne ko daa ànd ak nitam nitu yàlla la àndal moo yàlla yàgg nañ fi te defaru muy Cheikh Fallou Keita te ñoo bokkan koñ mu ne ma kii ñoo bokkan koñ ma ne ko pourtant bi ñuy woote fii da ngeen ne defe dañoo sànq kii ñu defar moom moo ko defar xoolal ni mu mel tey Cheikh Moussa nag comme jàpp nii la lay def mu ne loolu mooy résultat bi kenn ku ci nekk daa am loo doonan bi nga ñëwee ci Cheikh Moussa dafa dindi loola ba pare dëkk ci dëkkal baatinam ci yow amatoo looy tiit wala looy ragal nag waaye daa am looy rus ak looy jomb ku am looy tiit te tiitoo ku dut yàlla la ngay tiit wala nga koy ragal boo leen tàqale ko nga def njombe waaye yàlla bu ñu la tàqaleeg moom ba nga yëg wéetam bi da ngay jomba def dara parce que da ngay xam sees bi mu la teg te soo ko wàccee la ngay jëf seesu kaneen la ndax laqad xalaqnaa insaana fi ahsani taqwimin waaye nag summa radnaw asfala saafilin nit ñi ñu ngi dégradé seen te ko kon nga xam problème am na moo bu mag lañ am te itam góorgóorlu moo ñu war ndax nit ñi dëng lañ dëng goo ku leen da nga leen di te réew mi dara manqué yu fi lu dul jub comme ni ko Baye Dame di waxee kon nag ñun ñoo war a góor góorlu te doolee bennoo te xam ne wallaahi asim Cheikh Moussa lam doon wax rek la wax li nit ñi yaakaar bu doon defaru nit ñi defaru nañu ñooñu ko dàq fu mu fi ndolle te ba mu ko waxee démb dënn dafa rëccoon li ñu yaakaar yépp danaan du jaamu yàlla waaye da koo leeral ba mu pare yàlla ne la defal ma lii bala nga maa defal lii nag ma xam nga di ko def nee na te xamoo ko nee na sa julli gi foo ko teg sa or gi foo ko teg comme xamoo yàlla yàlla amu ci soxla dangay dem xam yàlla ba pare door a jaamu yàlla lépp loo xam ne xeetu xibaadaat la da nga koy jaamoo yàlla la ndax jaamu yàlla tënkuwul boo xasee xam yàlla sa lépp jaamu yàlla lay doon waaye soo xamut yàlla la ci jéem a jaamu yàlla ngay ne te nit ñi xam yàlla la ñuy weddi nit toog di kilifa diine ñu wax ko xam yàlla muy lim ay ponk lislaam waxul sax lislaam de ponk yi lay lim ne loolu mooy xam yàlla ki la digal lii nga xam lim la digal ne yàlla nga xam walla nga wax ko nit mu dem di góor góorgóorlu di jàngi gis nga waa Kër Seex Musaa dimbali nañ nit ñi sax pour ñu jàngiwaat parce que defe nañ ne li ñuy wax am jàng la te li ñuy wax nekk bokkut ak am jàng. ñu bari dem nañ jàngiwaat téere yi ba ñëw gën a sori yàlla ndekete ku bëgg xam yàlla dangay dem ci nit comme yow ku xam loo xamul nga jaayanteeg moom ak saa mu dimbali la ci li nga xam ne moo la ëpp muy xam-xamu xam yàlla loolu nag la nit ñi yaakaar ne ay tappale la waaye su nekkoon ne ay tappale la tariixa yi fi nekk du fi ne fi lañ fekk mbooleem xibaadaat yonent bi tënk ko ba wax ne al yawma akmaltu lakum ko ku ñëw amul loo ci yokk sëñ Touba li muy baax baax baax ñëw na ne lislaam gàddaay na ba soowu jant jigéen ñi góor ñi jaxasoo fépp mel ni lambaay mu ñëw na dinaa yeesal lislaam ci diggante tuubaa ak ni ko yonent yàlla Muhammad yeesale woon ci diggante Makka ak Madina te duma ci akasaat lor bakkan duma ci noonoo amul lu mu yokk ci sariatul islam te julli na ba julli ci géej waaye nag waxul amaa daaw mu salaati wala amaa daaw mu sàkkaat de baat bii ñu fi yëkkati la wax saxoo ko amma dawaamu sikri fa huwa akbaru min kulli makaanin muridun yuksiru te dane xadd xultu saalika bi laa israari wala ubaali bi sawil ankaar nit ñi li ñuy yaakaar boo ko dagaasee ngir andil leen li ko gën il faut ñu weddi la ku wax dëgg ñu weddi la kon nit ñi dañuy wax li ñu leen war a wax pour ñu weddi ñu dem xalaati nag saxoo tudd yàlla moo gën a màgg ci fépp foo xam ne ki namm ci yàlla mu ngi fa ki namm ci yàlla nag mooy murid Cheikh Moussa nee na fu waaye xëy namm foofu mu di muridam waaye muridullaay nag nekkul ki nekk tuubaa rek wala ki nekk Tiwaawan wala ki nekk Njaasaan mooy képp koo xam ne ni am nga nameel ci suñu borom bi saayibul iraada am murid nga murid nag moom dafay ut sëfoor bu ko yóbbu yow mi namm tuubaa wala Tiwaawan walla Njaasaan wala Pigine am na oto booy jël day am sëfoor waaye damay wax ne gis nga sëfoor yii ñoo sax boo xoolee yenn yenn sëriñ si boo jaayantee ngeen jox leen addi bu ñu mënta dem sax ñu yekkale la sëriñ yi duñ yekkale te mën a ñoo yóbbu client yi fenn yekkale daa war am bi ay yàlla client dem na ba nga xam ne fa nga war a yóbbu avanceetu la doo dugal ci benn oto mu dem sëriñ nañu yekkale waay ah comme mën a duñoo dem mais wala boog taalibe yi am fulla comme mu ngi wiiri wiiri te fa nga fa la tax a jóg demoo fa waaye nag nit koo xamul li ko tax a jóg noonu la rek njuddu jéer yi nga xam ne dañoo nikki rek ne fii la sama maam nekkoon fi laay ne mais doo xalaat ah wax dëgg yàlla ah mais lii moo am sëriñ sëfoor la ah am nañu wàcc kay ñun ñi dañoo wàcc di ñun ñii dañoo dem ba xam ne yee nañ ñu bañ xam ne fa ñu tax a jóg bokkut ak fii nga xam ne fii la lu jëm wër-wër gis nga gis nga yëngu ak dox bokkut yëngu ak dox bokkut nit ñi dañuy yëngu waaye bañ sóoboo ba léegi bu buñ doon dox àgg nañ yàlla soriwul waaye dañuy yëngatu rek waaye dox amul kon ku bëgg a dox dangay ngay dikk ci ki nga xam ne dafay tinki jaam ñi war leen a jàpp jaam ba pare libéré leen ñu gore seen digganteeg seen borom xam nga luñ doon dégg sañ nga noo jàpp jaam mbaa yeew ñu di maye seex musaa nag dafa sanc ñoom loolu ba pare jël ñu jébbal ñu yàlla dagg suñu buumu jaam kii moo gore Cheikh Moussa lim def benn sëriñ def ko barke alquran képp ku xamal sa ñoñ yàlla am na loo ci lëmas billahi wallahi moom rek moo xam la yàlla ba pare ne leen jaamu leen ma jaamu ku dee yàlla fay amul benn intérêt bu mu ci topp bañ na ko ba sama jaamu yàlla bu ko taalibe yaakaar bu ma ko yàlla joxee soxla naa ko jaamu leen ma jaamu ku dee yàlla fay ëllëg yowmal qiyaam amale mu leen fa dara ah xoolal nit ñi ni ñu def kenn ku nekk rek am na benn stratégie boo teg pour ak saa andi loo xam ne yow comme defal naa la lii lii da nga koy defal mais nañu xool ki ñu àndal xoolal nit nga xamal ko yàlla fi mu toll mu wóor la ne dina toll dimension boo xam ne boo amul ragal yàlla foo ko bëgg a mën nga ko faa orienté xamal nit yàlla mu bàyyi tool baayam di xëy sa tool nga ne ko demal gune ne xamul ay loolu du gore ngont la gu am say ngont mi ngeen am loo leen ma ci am doy na ma loo leen ma ci jox doy na ma kooku daa yaakaar taalibe sëriñ du yaakaar taalibe taalibe bi moo yaakaar sëriñ ci digganteem ak boroomam bu ko defalee lim ko war a defal ñu ànd yaakaar yàlla c'est Moussa dane ak saa sëriñ Touba mooy sama sëriñ waaye yàlla mooy sama boroom ku yëkkatiwut asamaan si mbaar ko laloo suuf doxaloo noor ak nawet doxaloo loo mbiram góor ak jigéen doxalu la dara defuñu la ngay boroom te nee na loolu gisuñu kenn fekku ci suñu boroom am na wàll jaar fii lu ne jiñ na leen ko waaye moo bind asamaan koo ko fi mas a dégg moo bind suuf koo ko fi mas a dégg na taw mu taw am na ku muy wax mu taw kon tawut de bu nee na taw mu daal di taw ku muy wax mu taw daa jubboog boroomam waaye du mooy taw de kon Seex Musaa tawhid la woote dafa jël jaam ñi yóbbu leen ci yàlla génn seen diggante ak seen boroom lii nag moom la Seera Faal ak saa sëriñ bi ba am ko nekkul ay yeneen tuq si ngalam ak yeneen yu di noonu laa ilaha illallah la woote faqat ku yokk yaa yokk ku wàññi yaa wàññi laa ilaha illa nag pour defar nit rek la mooy dindi ay sikk di joxe secret asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu جمدار لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا رب شيخ موسى لا إله